Euh... salmatorodo mu <laughs> tu préfères voilà <laughs> mu jëkkee ñu actualité people yi <laughs> voilà donc euh, comme comme année ba da bëgg a xarul eh, yi dal leen nag yàlla baax voilà parce que donc dañ koy euh, commencer rek par par cri de cœur bi nga xamante SOS euh, consommateur an mhm. jamono ji mu ngi koy def ñeel chantage bi nga xamante buñ ko mënee tudd de noonu mhm. école privée yi ñu koy def euh, ñi nga xamante ne ñoo di parents d'élèves yi parce que ñu ngi leen demander à ñu fay trois mois de scolaire de scolarité yi nga xamante ni Euh, jàng eh, seen i doom jànguñu ko parce que dañu nekkoon ci période du coronavirus donc euh, état du Sénégal ne woon ko école yëpp na tëj ah comme ni ko euh, ñëpp xamee par la suite ñu gis ni que ba école bi ubbee école privée dafay dafay demander à ce que parents d'élèves bi daal di fay 3 mois de scolarité yooyee daal di leen di sax menacé comme quoi bu ñu fayul scolarité yooyee seen i doom bu ñu moytandiku rek seenub jàng dina yàqu donc ñu gis ni que am na benn procès bu nga xamante ni ubbeeku na ñeel euh, parents d'élèves yi ak école privée yi ndax euh, gannaaw ba nga xamante ni parents d'élèves yi dañoo dem ci ministère ñoom dañ leen ni que nañu dem porter ji parce que loolu ñoom mënuñu ci intervenir yoon rek moo mën a def liggéeyam donc gis nañ ni metre ma Massokhna Kane mi nga xamante ni moo jiite SOS consommateur moom it daal dinay génn ne que lii euh, lajjiteefu état du Sénégal la et puis fuite de responsabilité rek loo ko hmm. état da ko mën a tuddee ah ci Macky Sall jaarale ko ci ñi nga xamante ne ñoo di ay ministère am ndaxte moom mooy autorité bi donc moo war a tey ñëw tey ji tranché parce que moom moo ne woon nañu tëj école yi donc bu ñu demee ba ci situation bi nu mel moo war a jóg régler problème bi waaye warul renvoyer ñi nga xamante ni ñoo ji parents d'élèves yi ngir ñu daal di dem ci ci tribunal yi donc xam ne na ni que bu ñu jëlul ay ndogal rek ci li ni génn nag ci mbedd mi am benn euh, marche de protestation bu nga xamante ni rek dinañ ko def xam nga lu ma jaaxal dinaa ko laajaat laajoon naa la ko bi dinaa la ko laajaat. Mhm. waaw mais non euh, euh, école privée yi ñoom ana koppar gi leen nguur gi joxoon ci Covid bi. 3 mhm. voilà pour euh, compenser maanaam ma kii boobu kii boobu. ñoom nee nañ. waaw 3 milliards yi jot nañ ko. waaw euh, seddoo nañ ko mais bi biñ ko biñ ko séddoo maanaam lañ lañu ci jot. waaw mënul sax fay li nga xamante moo di ay seen facture courant wala sax li nga xamante mooy seen ay facture d'eau mm-hmm. parce que lu tuuti la école privée yi dafa bëri 3 milliards yi. Mm-hmm. Euh, doy leen daal d'accord naa biñ leen koy jox. Mm-hmm. ñoo ko nangu woon. ñoo ko nangu woon. dañu dem ba nangu ko. à préciser que nekkul école yëpp ko jot aussi. effectivement am na ñu bëri ñoo xam ne la xam nga man commencement gis nga nit mm-hmm. commencement ngay commencé bañ mm-hmm. gis nga bi ñu nee trois milliards yi la ñu waroon xam ne trois milliards yii du mat mm-hmm. ñu ne ee eh, teel wax nit ñi ne ee eh, 3 milliards yii. matul gars yi wax. Mm-hmm. mais comme parce que ci loolu dama la ciy dolli rek. kat yi sax bi ñu leen joxee xaw ma 1 milliard. xaw ma ñoom dañ ko delloo ne loolu matuleen. mais xam nga xam nga loolu mooy logique. dañ ko xoolal même dëgg la parce que moment boobu nag ñoom dañoo sonnoon. Mm-hmm. école privée yi dañoo sonnoon. parce que moment boobu kiiwatuñu mais mais mais loolu léegi xam nga lan moo nekk. Mm-hmm. arbitre bi xam nga kenn mooy arbitre bi. nañu waxante dëgg. arbitre bi mooy état. état moo war a ñoo arbitrer xool. régler le problème là parce que euh, euh, école privée yi. mënuñu kaa saafara. Mhm. Euh, parents d'élèves yi mënuñu kaa saafara. Mhm. ñu ñaar yëpp kenn mënu ci dellu ginnaaw. Mhm. non honnêtement. et le temps passe yi ñu ngi seen moom laa lay wax dama ne. xam nga lan la état du Sénégal xam nga gis nga nag gis nga état dëgg dëgg ñii dañ leen fal. pour ñu xool suñuy problème problème am na ci éducation bi ci loolu. nda état ñëwaat xoolaat. xam ne que lii la mu woo ñaari parti yi ne bon lii nañ def dina am sa concession mhm. waaye kii na def concession fii kii def concession waaye nag neexul ba neexul loo xam ne jàngoo ko ñu naan ne na yow danga koy fay mhm. loolu tam neexul mais je suis pas très d'accord mais c'est mhm. c'est juste que rek cher euh, pour xelal quoi nañu xelalante rek mais mais xam nga quand on prend un contrat c'est sur l'année avec les l'école neuf mois la année scolaire bi yaa ngi dégg Euh, te euh, ñoom dañu am seen programme dañuy fay courant même bu fekkee ni xale yi jànguñu xale yi ñëw ñu jàng si mhm. euh, maîtres yi instituteurs yi ñoom dañuy ñëw ci classe yi mhm. courant yi day tàkk administration bi day liggéey ci biir école bi mhm. loolu loolu fayu xale yi moo koy fay waaw donc ñetti weer yooyu bu gars yi fayul gars yi duñu mën duñu duñu duñu am lu ñu lu ñuy liggéey il faut ñii di liggéey foofu duñu leen am lu ñu leen fay Cheikh Tidiane rapidement ma wax ma posé foofu benn question benn question bu kii demoon ba ci kii bi mois de mars mu am coow état décrété euh, kii euh, année blanche. Mm-hmm. léegi bu décrété woon leen année blanche. Mm-hmm. léegi ñoom loolu loolu yow loolu loolu nga euh, kii boobu loolu ñuy kii noonu man defe naa ne ñoom état moo leen ko mën a. jàppale dans dans un pays normal. voilà loolu laa lay wax xam nga loolu la xam nga bu boobaa parents d'élèves yi xam nga doo ñëw taxale nag beneen année bi beneen année académique bi duñ ñëw ba saa ne eh, loolu ñu defoon année blanche. Hmm. loolu léegi rek kii euh, kii lañ ko xamul fay leen. parents d'élèves bi duñu wax que ñu fay leen. voilà non non dëgg la euh, moom laa lay wax. nga intervenir moom laa lay wax moom laa lay wax moom na lay wax moom laa lay wax moom laa lay wax moom impacté ay ay entreprise yu bëri parce que bu ñu demee ba ne Covid 19 bi tax na ba 7000 entreprises daal di tëj seen buntu. Mm-hmm. kon ba ci école privée bokk nañ ci euh, parce que am na cay euh, école privée yi nga xamante ne am nañ problème sax fay seen i location mm-hmm. maanaam ñi nga xamante ne ñoom mm-hmm. ñoom moomuñu euh, batiment bi location la. am nañ problème pour fay seen location te ñëpp xam nañu aussi école privée dafa doon école ba nga xamante ne tey boo ñëwee nga toog 3 mois bindoo sa tour année scolaire bi démarré nga dem ba ci digg année scolaire nga ñëw bind sa tur dañ lay demander nga fay mhm. mooy jot a jàll mm, léegi état mu war a jël ay responsabilité parce que am na ci parents yi nga xamante ne ñoom fayaat nañ seen doom yi ba pare mm. Mm. trois mois mu am ña nga xamante ne ñoom neen déet duñ ko nangu comme li association des parents d'élèves et étudiants euh, li ñu wax rek nee nañu état moo fiir ay responsabilité comme na mm-hmm. taxaw jàppale ñëpp que pourquoi pas duñu waxtaan ñu xool maanaam la nga xamante ne loolu nga war a fay ci 3 mois mhm. maanaam ñu wàññi ko mhm. su fekkee ne 100000 nga war a fay ñu ne léegi fayal 50000 ñu yombal bin mi mois yi di ñëw mhm. ñu boobu dem très rapidement c'est gis naa école am ñu koy def euh, dem rapidement ci ñu topp actualité bi ndax ku ne xam na ne jamono yi yëpp ku ne dégg na coowal nappkat yi nga xamante ni Euh, dañoo am euh, ay jàngoro ba nigi ni si na kenn xamagul li nga xamante ni moo di jàngoro boobee lu ko waral ak ban façon jàngoro la ndax euh, gannaaw ba nga xamante ni def nañ ay prélèvement def ay analyse et tout jamono ji xam ne nañu ni que yenn ci sénégalais yi dañoo génnoon pour dire am benn produit chimique moo xamante ni dañ ko sotti ci géej gi moo waral nappkat yi nga xamante ni dañoo duggoon ci ndox mi daal di am jàngoro bile waaye nag analyse yi moom la mu xamle dafa wuteeg loolu thèse boobu nga xam ne ñu ci bëri ñu ngi ko doon wax parce que xam ne nañu ni Euh, euh, jàngoro jooje jógewul ci li nga xamante ne moo di napp yi hmm. napp euh, ci ci ndox mi donc ñu ngi xam ne ni que jamono ji résultat yi dañ ko war a gën a orienté ci filet maanaam mbaal yi nga xamante ni pêcheurs yi moom la ñu utiliser suñuy suñuy napp donc ñu ngi xam le ni que ñu ngi euh, dem ci euh, ñooñu nga xamante ni ñooy ñëgu ci wàllum toxicologue euh, toxicologue daal di leen orienté ci recherche yooyu ngir ñu gën a saytu ñeel filet maanaam mbaal yi nga xamante ne moom la pêcheurs yi du utiliser waaye nag xam le nañu ne que teesu ndox bi jamono ji mën nañ koo tegee na le mhm. waaye ba négé ni si rek xamaguñu exactement lan moo waral jàngoro joojee d'accord je pense que foofu sax jarul ñu ñu ci loolu la doon que da nga rejoindre carrément sax li nga xamante moom la mhm. Aïcha doon wax tout à l'heure mhm. parce que commencé nañ def euh, ay euh, def nañ sax ay prélèvement mhm. mais résultat yi moo génnagul waaye accès nañ ko ci li nga xamante moo di filet yooyu euh, nappkat yi di utiliser donc ñu ngi xaaral yi rek résultat yi bu génnee lan la ñuy jox parfaitement ñu daal di dem ci Aminata Touré mi nga xamante ne dañ koo wàccee ca conseil économique social environnemental daal di jël Idrissa Seck teg ko foofee ci njiit li mu mel ni am na benn passation de service bu nga xamante ne amoon na euh, seen diggante euh, jamono ji nag Idrissa Seck daal di jël lenge waaye nag ñu ngi euh, xam le ni que jamono ji Walf Quotidien dafa daal dikk ci décret honoraria bi nga xamante jamono faatu ko ya ayu ba suñu wees gisoon na coow yu bëri ah donc ñu doon xam ne ni que képp ku bénéficier wu ci lu tolloog 4,5 millions de euh, francs CFA chaque mois donc mu nekk benn décret bu nga xamante nit ñi coowoon nañ ko bu baax a baax waaye nag dañu xam ne que jamono ji moom Mimi Touré elle elle risque de ne pas bénéficier wu ci euh, boobee décret présidentiel ndax ku ne xam na ni rek jamono ji moom digganteem ak Macky Sall rataxul bu baax a baax donc nekkul lu nga xamante ni c'est automatique da ngay ñëw toog conseil économique social et environnemental rek décret bi daal di officiel pour ñu euh, a benn décret pour ñu jox la ko soit wala euh, ki nga xamante ni moo jiite jiite bureau exécutif conseil économique social environnemental def benn proposition jiital réew mi pour ñu mën la koy jox waaye nag xam ne nañu ni jamono ji mi euh, Mimi Touré euh, néew na chance yi mu am pour mën a bénéficier wu ci boobee privilège ndax xam na ni ku ne ku ne xam na ni rek jamono ji moom ay relation ak Macky Sall jamono ji c'est très tendu et puis moom parewul aussi pour revendiquer quoi que ce soit Mm, ah donc de toute façon Mimi Mimi Touré ni ni ñu ko xamee à travers la presse mm-hmm. yooyu noonu bon gëw ma ne moom nar na nekk kuy nangu xaalis boobu noonu la parce que déjà fan yi sorties yi ñuy gis muy muy def. Mm-hmm. Euh, euh, nit ku ñëkk lañ ko lañ lañ ko mën a jàppee mer mer na lool et puis li nga xamante ni moo di euh, sa grandeur. ah mm-hmm. man de si li ma gëm gëw ma ni war na mën a jël xaalis boobu noonu la xaw ma nag mu am beneen jikko ci suuf boo xam ne xaw ma ko. mën na nekk mais aussi j'ai bien aimé sa sortie euh, euh, de de la dernière fois parce que génn na. Mhm. pour dire que moom dégg na Idrissa Seck naan ba mu ñëwee foofee gisu fa ay këyit gisu fa ay documents nee na nag Idrissa Seck depuis 2004 ak léegi amul benn administration bu nga xamante ni géré na ko léegi jamono dafa soppeeku li xale naan fi réew mi tollan mhm. lépp ci machine la ordinateur donc il n'a pas à revendiquer quoi que ce soit. Mhm. lépp ci ay machine la mais bu bëggee nekk au diapason na jéem rek fexeek euh, tolloog li nga xamante ni moo di tolluwaay réew travaillé ailleurs depuis bi mu génnee ci ci nguur gi quoi depuis liggéeyu quoi <laughs> après bon da nga ñëw ñu bombardé directement Euh, troisième personnalité de l'État du Sénégal nga nekk président conseil économique social et environnemental liggéeyoo depuis depuis quinze ans hmm. ñu bon je c'est lii mënul am ci yenn dëkk yi quoi mënoo toog pendant quinze ans nga jékki-jékki tey ñu hmm. defal la troisième personnalité d'un pays hmm. euh, qui a envie de se développer je, ne crois pas que ça soit possible je pense que gars yi dañ leen teg foo nekk ñu fa ils ne sont pas forcément les meilleurs les meilleurs ñi ngi ci dëkk vidéo nga ñu bombardé la comme ça dafa xaw a metti tuuti ci xol nag waaw bu baax dafa metti quoi mosoo li defoo dara yaa ngi toog jàpp sa ñaam mais moom mais moom mais moom li mu wax aussi bon leer na nee na nee na moom euh, naka la ko waxati sax fas yéene wu ko woon mais ndogalu mhm. yàlla la daal <laughs> yàlla yàlla ko dogal. en plus de son de son de <laughs> son absence ce manque de de de de crédibilité. Mhm. ñu mooy jiite mooy troisième nitu réew mi. Mhm. Euh, mais c'est peut-être Macky aussi l'a fait pour le pour le saquer définitivement. Euh, euh, et puis et puis le bouter hors de de la vie politique hein, tout simplement. en tout cas doy na wax ay ca nekk ñu dem ci ji ji nga xamante ne amoon na ci marché Ocass donc mu mel ni ba léegi néegi ni si coow li wureegul bi wureegul ndax ku yaa ngi ci yooyu di yàbbi donc mu mel ni euh, xayma gi ba tey defaguñ ko waaye ku ne xam na ne rek alal gu bëri koppar gu bëri euh, dem na ah, ci moo di marché occas te li gën a métti sax nga xamante ñoo di commerçant yi nekkee foofu moo a dem sax moo di liquide ay xaalis yu nga xamante dañ koo paqueté woon dugal ko ci seen place yooyu nga xamante fa la ñuy daanee seen doole donc ñu euh, dem ba foofu nga xamante ne moo di marché occas la ñu xam ne nag moo di que du Sénégal mu war a ñi nga xamante ñoo ni commerçant yi nekkee foofu def de sorte que du ñu jaayati di jël xaalis wu toll noonu di ko paqueté di ko def sur place alors que mën na leen euh, gën a euh, orienté ba jël xaalis boobu denc ko ci li nga xamante ne moo di banque yi alors que parce que li dafay jouer bu baax a baax ci économie sénégalaise et on sait que jamono ji Sénégal dafa nekk ci gout ah ñeel euh, jàngoro yi coronavirus bi. effectivement en tout cas lakk bu métti la lakk bu métti la c'est vrai que di gis ay marché yuy tàkk mm. am nañ habitude bi mais bii moom dafa dafa dafa jéggi dayoo et puis ils ont perdu gis nañ li nga xamante mooy taxawaayu euh, mhm. na ko si par la voix de Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké donc nañ leen jàppale bu baax a baax ñu mën a delluwaat si seen i activité et mhm. li nga xamante ni perte nañ ko donte mënuñu récupérer yëpp mais ñu am sax au moins loo xamante ni dinañ leen mhm. ko mën a jox ñu mën a recommencer waat li nga xamante moo di euh, seen i activité incha allah dëgg la Fatou ko mais aussi naka ngay jëlee xaalis bu tool noonu aussi nañ waxante dëgg commerçant wax tamit dëgg la mais da gis ku ci yor ay millions jël ko pakate ko dugal ko sa place mm-hmm. ah, benn court circuit mun na la yàqal lakkal la sa place parce que lan dañu nga sax yëkkati benn dix mille francs wala vingt mille francs mm-hmm. xaw ma nay la xaw maa ngi jéggalu mais en tout cas peut d'orientation la wala je pas mm-hmm. mais nekk na ay doxalin yu nga xamante vraiment war nañ ci war nañ ci bàyyi xel et c'est pas la première fois marché Ocass di lakk pour xool lan moo waral jiye ji di am tout le temps pour effectivement mais commerçant yi ñoom tout le temps thèse bi ñuy avancé concernant xaalis bi ñuy denc foofu mooy que ni yi li ñu leen di li leen di dagg euh, li euh, ci xaalis bi ñu fay euh, dénkaani moo bari xam nga nag sama mbokk commerçant yi parce que man sama famille ñu bëri ay commerçant lañ moo tax ma mhm. sañ leen a wax loolu dañoo bëgg xaalis ñoo xaalis ga amuñu ci benn kii daal dañoo bëgg xaalis donc le fait ñu leen di dagg noonu daf leen di metti amaana moo tax ñu koy bëgg bàyyi foofu mais bon ah lu mu ci mënti doon bu mhm. weesoon sàggan bi tamit uh, mi ngi ci donc yàlla na leen suñu borom. Uh, defal jàmm daal ba ñu ñëwaat sàggan bi moo ci ëpp solo de. ma soog sàggan bi moo ci ëpp solo. voilà amuñu amuñu assurance amuñu ay yeneen marché occasion dina fi amaat ah. sa ne va pas servir en fait à, à grand chose j'ai vu que ne Antoine Diome dem na may na leen cinquante millions xam nga ak yooyu déjà xaalis boobu sax amul transparence mhm. kenn xamul jël cinquante millions noonu comme sa jox leen ko mhm. et puis et puis et puis et puis y en aura d'autres dina am ay marché marché ngelaw dina amaat marché marché euh, Moussante dina amaat marché marché marché mhm. y aura d'autres choses nañ nañ organiser marché yi ba pare képp kuy commerçant ñu xàmmee la ñu référencé la enregistré la nga am ay assurance lii nii tey jii nii bu li ñu amoon assurance tey jii nii rembourser li ñu li fa nekkoon yëpp waaye amuñu assurance pourquoi duñu duñu pourquoi bëgguñu avancer mm-hmm. pourquoi pourquoi vous ne voulez pas avancer dans ce pays là doo leen jël seen bopp société d'assurance yaa ngi fi ñu assuré nga xam ne bu fekkee dañuy évaluer valeur u valeur li nekk marchandise bi nekk ci biir sa magasin hmm. bu coow jibee ak yooyu problème am wala lakk am ak yu demee noonu mais bu assurance bi moo lay fay effectivement et yi tamit ni ñu defar bouche d'incendie yi tamit loolu am na ci solo hmm. trop parce que souvent sapeurs pompiers da nga ma koy sànni def ma ko nii. def ma ko nii ma ma mm. ma capté ko. <laughs> donc <laughs> bu ñu daanu ce que doo est ce que doo bàyyi ba ñu tëj people bi ah, après yow nga ñëw. parce waaw bàyyi bàyyi ñu tëj people bi rek waaw d' accord ok wala ma may la ko rek jëlal ay ca jëlal may naa. waaw euh, euh, RFI moo joxe information bi. Mm-hmm. le président de la confédération africaine de football CAF. Mm-hmm. Euh, Ahmad, Ahmad, Ahmad a été suspendu 5 ans What? par la FIFA. 5 ans 5 ans. Donc ce qui veut dire Ahmad, il ne peut plus être candidat euh, au mois de mars. Il a fait une bêtise. Euh, bon, ou des bêtises xaalis. ah euh, lubal xaalis mm. waaw xaalis la. ci affaire euh, mm-hmm. loolu mooy information bi daanu. dinañ ci ñëw ci rédaction bi nu mu gën a. yaatu ci dinañ ko bu baax a baax Ahmad Ahmad qui vient d' être suspendu par d' accord pour cinq ans waaw loolu moom exclusivité la donc dañ lay tàccu daal mu ngi noonu donc ñu daal di wëyal suñu suñu suñu people man maa koy yeggali. parce que dafa nekk information mbégte bu ñu neex neex lool muy euh, suñu euh, pipoleuse bi laa koy wax Salma Ibrahima Fall <laughs> qui s'est mariée ce samedi ndeysaan xam naa fi mu ne nii ñiy seex suukar dina bëri euh, elle est devenue madame Niang madame Niang Toro Doran mm. ñu koy féliciter di kontaan lool lool lool lool ngi noonu ay waay bii jongo tamit <laughs> ay kii te bi na as de <laughs> macha allah